regroupement am di taxawu Sénégal nag jël nañu dogal ngir teewee ca dialogue bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall woowoon na leen ci fas yéene nañu nag bokk ak responsabilité ñoŋal lépp luy xeex yi nga xamante ne yëkkati woon nañ ko ci biir l'opposition bi bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi ginnaaw nag bi ñuy waxtaanee ak instance de base yëpp ñu nekk ci taxawu Sénégal ci boobu boobule consultation sax nga xamante ne amal nañ ko ci département yëpp ci mim réew naka noonu ci diaspora bi ak lii di organisation ak mouvement yi nga xamante ne bokk nañu ci ñoom méngoon nañu ci teewaayu taxawu Sénégal ca dialogue ba bu ñu sukkandikoo ba tey ci bataaxal boobee lu soxal nag mandat yu ay instance de base am taxawu Sénégal lar na bokk ca boobule dialogue ak lii di responsabilité ngir xeex lépp li nga xamante ne mooy ay combat yu l'opposition bi taxawu Sénégal di xamle ne dina taxaw tembe ca ligne bu njëkk ba ngir xeex li ñu duppee ñetteelu candidature bi nga xamante ne méngoowul benn yoon ak suñu constitution te dinañ wéyal xeex bi fii ak ñi jëmma ca février 2024 Khalifa Sall ak ay ñoñom nag bi ñu jëlee décision ngir bokk ca popule dialogue xam nañ ne rek dañoo war a taxaw tembe si li leen yëkkati woon ngir yóbbu miim réew ca kanam bu ñu sukkandikoo ci ki fi nekkoon meeru Ndakaaru ak ay ñoñom ci réewum démocratie bu fekkee ne sax crise bi tar na fa lool jaloog bi nekk na loo xamante ne rek dañ ko war a jëfandikoo ngir rek mu saafara jafe-jafe yi naka noonu lépp li nga xamante ne day indi féewaloo loole ngir ñu gën a tabax déggoo ci lu soxal règle pacification bu vie politique bi ak li ñu duppee dévolution démocratique bu pouvoir ngir jeexal nag taxawu Sénégal di xamle ne nag dina woy di des ci ligne d'ancrage bu yeewi askan wi ak l'opposition bile.